ñu dellu si tuuti ci pour leeral Amadou wax na problème encom violence encombrement et ak sécurité bi en général lu am solo la loo xam ne foog ñu jël ci ay mesures extraordinaires lu tax ñu wax loolu dañuy constater de plus en plus et ça rejoint euh, l'interpellation du représentant de Taïchinger dañu bëgg ne dañu bugg a doon ay professionnel et chaque jour ñu def loo xam ne dafay wane ne yeggaguñ sax ci amateur lu mu tekki mooy d'abord ñan ñooy ŋànk écurie yi première chose mooy ñu bari nekk ci milieu làmb bi maîtriser wuñ texte yi ce est extrêmement compliqué loolooy tax yenni comportement yi dem ma constaté aussi que responsable écurie ñu ci bëri maîtriser wuñ seen écurie champion yi ci biir écurie yi ñooy def lu leen neex gars yi topp ci ba pare nag suñ yegg see ne na CNG dawal yërmande balaa ngay mun a dawal yërmande day fekk ni tegu ci yoon wi peut-être mën na juum mais yenn yi day romb juum day nu rëgmaate encombrement enceinte bi c'est inadmissible c'est inadmissible depuis que maa ngi CNG damay laaj mbër yi ancien yi nekk suñ biir est ñaar fukki nit fanweeri nit ci cumikaay am na njëriñ je ne crois dem naa sax ba yaakaar ne ñoo ñooñuy ñëw ne dañuy jàppale si mbër bi dañuy lor mbër bi parce que ñooy def faute yi xam ne kenn rek la ñuy sanctionné muy mbër bi donc ñun ñii war nañ réfléchir balaa saison biy ubbi naka la ñuy def ba wàññi ñiy nekk ci biir géew dangay gis ñoo xam ne bëriwuñ mais dama jàgg poser plusieurs débats un règlement day doon pour ñëpp loo xam ne peut-être yomb na Dakar te soo demee Fatick gale ma dëkk du mun a am donc ki bëree fii Dakar duñ ko mun a àttee nañ koy àttee Fatick day poser problème deuxièmement eh, ci compétition loo xam ne résultat bi day am influence ci compétition bi ni muy continuer foofu utiliser caméra am na solo drapeau chef de la grand tournoi gis ngeen ne fukk it kii amee tout de suite dañuy arrêté manifestation bi ba leeral jël am na walla kii mais combat bu ñu nommé muy benn combat nga bëre ko dem suñ ko mënee am temps mieux mais nañ réfléchir te na doon pour ñëpp ça c'est important euh, remboursement recours d'abord recours su amee dafa am commission bu koy def commission bi en général am na lu leen di jox d'accord naa peut-être ñu rembourser mais est-ce que ce sera un remboursement intégral totalement vingt cinq mille francs c'est rien c'est rien vraiment ku kuy bëri di yaakaar ne di nga am deux millions trois millions ci bëri simple wala nga am combat bu ñu la fay millions ngay laaj ñu rembourser la vingt cinq mille te nag da ngay bëgg a participer ci développement lutte bi ça pose problème alors dégg naa aussi fu ñuy waxee ni on tend vers le professionnalisme est-ce que li gars yi fay pour ñu jox leen céder leen manifestation bi néewul par exemple quand on dit licence avec frappe dix mille francs tu réclames cent millions sur un combat est-ce que loolu jaadu na cinq mille francs pour etu tu peux gagner sur un trois trois millions est-ce que jaadu na parce que lu baax mu mënuñ ko am te lu baax fekk ko il faut que ñu réfléchir du affaire yi CNG ce que j'ai dit toujours de profiter pour wax ni ku bokk ci làmb waxtu waa amee une idée ou nga bind courrier CNG dina la tontu wala nga demander audience ñëw toog bureau CNG poser sa problème donc CNG n'est pas une maison fermée encore une fois ñu ngi koy wax solennellement ku am loo xam ne yaakaar nga ne mun na jëmale làmb kanam ñëwal nga poser problème bi mais poser problème aussi ne veut pas dire adhésion ça ne veut pas dire que soo yegg seeni dem leen gauche rek ñëpp daw dem gauche foog ñu déglu la seet ndax mu ngi ci biir mission bi lan lañ ci mun a jël ñu jël avancer ko il est vrai aussi que le plus souvent su saison xasee ubbi c'est difficile de revenir ci kii sauf su dee quelque chose d'extraordinaire waaw tey dañ daje woon fii ci arène national bi pour euh, waxtaan ak ñi ñu ngànkal làmb ji yépp la saison bii ñu génn naka la taxawee woon liñ ci mun a jàpp mooy géew bi yàgg naa ko wax xejam na dafa gëj a encore kon dinañ ci jóg jël ay mesures yoo xam ne ñi amul place ci biir arène bi ci suuf dootuñ fa nekk ak ku mun a doon nag eh, ñu mun a wax ne. saison 2019 2020 su ci yàlla àndee le premier octobre ku bëgg a ut licence ku bëgg a toppatoo kayit mun nga ñëw CNG pour que à partir du 15 octobre su fekkee am na mbër yu am licence su fekkee ne am na promoteur yu taxaw pour tëgg saison bi tarde bi mu tardé woon daaw incha allah ren du fa yegg. waaw xam nga li ñu gis mooy eh, dix heures du matin ba dix heures ci guddi loolu si spectacle boo xam ne dafa bugg jëm kanam du sotti kon foog ñu seetaat ci suñu biir naka la ñuy def ba spectacle yi durée bi wàññeeku mais naka la ñuy def surtout pour mbër mi xam ne day dugg ci làmb dix heures voire onze heures midi. ba 19 heures ba timis jot ñu di ko woo mu topp parewul loolu foog ñu jóg ci d'abord physiquement dafa métti nit ngeen bu 5 7 heures du matin jëm 22 heures loolu foog ñu wax ci foog ñu seet ban heure la mbër mi ñëw ba pare mbër mi yegg si toog 3 heures ci biir làmb ji balaa muy tuus loolu ci li yàq làmb ci la bokk. règlement bi dafa ne mbër mi su duggee may nañ ko fukki minute ak juróom pour mu tuus te mbër mu ndaw mu tardé aussi ba mbër mu mag mi bàkk dootuñ la bàyyi nga bàkk loolu mu ngi ci règlement yi bu yàgg lii dañuy wax rek dañuy gën a taxawalaatal rek li fi nekkoon mais presque lu bees amu ci. léegi li mu buggoon laaj ci côté comme rapport lañ wax euh, ci côté rapport bi maanaam licence yi comme ni ñu doon wax ay dix mille ak nangam yéen actuellement ci côté boobu am comme ay licence yu nga xam ne moom lañ am saison bi passé su côté xaalis bi. ñun ñu yàgg <laughs> waaw licence ak xaalis waaw xaalis bi daal mooy problème bi. Ah, Sénégalais yi ñu ma koy faral di laaj quoi li ñuy dagg ak yu mel noonu. Euh, waaw d'accord xam nga nit ñi ñàkk xam moo taxoon yow tubaab bi di wax ni en parle le plus c'est souvent ceux qui en savent le moins yi wax ni ci penc mi ñi ëpp coow mooy ñi gën a néew xam-xam ñàkk xam.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

bu mu ñëwee CNG si laa gëm lan mooy kaaraay parce que xëy na peut être dañ doon wax naan kaay la mbëru tubaab la affaire yi demee noonu kaaraay moom mosu ko gëm mais bu mu ñëwee CNG laa gëm lan mooy kaaraay parce que dama xam ne waa CNG kaaraay da leen jàpp ndax te kaaraay da leen di bàyyi saa moom masuma ko wax en réunion mais je je profite de l'occasion pour war ko mën a wax ñu dégg ko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 CNC woote tey rapport bilan financier yéen en tant que ay membre ay manager li ngeen fi dégg nii doy na leen wala. waaw man bettuma Babacar dañuy delluwaat santaat yàlla rek ndax li ñu dégg romb nañu doy boo dégloo ci biir wax bi rek dafay jàpp ne CNG bi mooy doxal boppam kon il est temps état du Sénégal jàppalewaat làmb te làmb soxla na jàppale. souvent nit ki bu nekkee ne dafay débrouiller la mu am da koy dellawaat ca biiram lii ci équipe nationale lépp mu jox ñu ko bañ la keesam 12 millions moo ci ne yàgg naa wax gars yi ni li ñuy toppee CNG bis bu ko leeralee dan ñu bëri dañu am déception kon nag donc dañuy sant yàlla ndax heure bi daaw tàngoon na jër te heure bi ren ñi ngi toll ci di laaj bilan kon nag donc sant yàlla di féliciter ñëpp nan nu ubbi làmb ji daal dès le premier xale yi man teel a bëri ñu may ñu ñu bàyyi d'ici un deux mois ñu doon renouveler licence yi xale yi mën teel a bëre làmb ji mën a neex loolu daal la ñuy ñaan yàlla te ubbi ñaari stade yi nag fu neex waay tëgg bu ko defee boobaa dina tax làmb gën a am doole daal te ñu bañ a ubbi rek arène bi tëj Iba Mar parce que loolu ñu bëri na yëpp daal loolu daal laa gis man man maa gën a bëgg kontaan aussi itam ci yéen yàgg ngeen fi yendu fi di jël information loolu dafay wan ni concentré wu leen ci rek dem jëli mbër mi waaye tey nag bu ñu wootee nga xam lii njëriñu làmb la en général ngeen ñëw taxaw ci kon presse bi yëpp dañ di féliciter di kontaan ci ñëpp kontaan nañ trop.